غدائي فرضي شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى شيخ ngi nii seede la ci man léya ngi nii seede la ci man Cheikh Jaxate ngi nii seede la ci man waaw ci mbaaxu ci mbaaxu yàlla allah waaw ba Ah, mu ngi naaj cours bi sax sorewul mais daara ji du jeex mais fii ñu toll nii lii la réew mi laaj waaw nit ñépp ngi jongoro li ñu gis def leen derange te ñemewu ñoo tudd ndax ay kilifa ñoo tax dama xam ni boo ko bàyyee noonu ñoom itam ñu continuer noonu yaakaar bu tas boobu loolu baaxul waaw moo tax nag ma jël sama responsabilité parce que damay wax ni sunu boroom sunu boroom du xuloo sunu boroom du xuloo day faj ndax day fekk lu ko wóor ni keneen mënu koo faj moom rek moo ko mën a faj mu faj ko et puis c'est tout mais du xuloo waaw ay na nag ku ne mën nga ñoo dëkkal fu ne daa gis sax ñuy bind xam naa bu Mansour jógee en tant que journaliste nekk ci leeral TV mu wax leen ko ndax dañu bind ci seen annonce ci suba ni man damay chercher électorat bu Sonko lu ma koy doyee hmm. man sama électorat benn tolluwul ni moom di kon lu may demeti pour wuti électorat bu bu Sonko mënul nekk moom bu ma soxlawul man duma ko soxla te moom xam na loolu waaw loo taxoon bi bi mbokk mi ñëwee ni ma Sonko moo yónnee nee na nga may ko ay carte pour gàmmu gi ma xam ne xam na ni foofu la intérêt nekk ma boole Cheikh ak oustaz Cheikh Sarr nekkoon na leen wutal ay carte te wutal leen ay laissez-passer mu yónnee délégation bi muy yónnee ñu ñëw fii te bokkul ak délégation bi ñëw ci Yewwi Askan Wi ndax nit ñi Cheikh Begg bi sedd la ci waxtaan na ci ak moom fekk boobu ñuy waxtaanee affaire candidature yi. mais defe nga ni réew mu toll nii présidentielle ñun la soixante candidats ñooy xëccoo yëf yi loolu fu mu jëm. te waa ànd bokk yaakaar. genn wàll ga yépp ñii seet si nañ ma ñii yónnee nañu ma ndaw man la ñuy déglu ni fu ma jëm yóbbaale leen. moo tax rek ku yóbbu tey lii marché mu ngi marché xamuloo waaw bu ko defee rekk bu la yàlla defee nga jeexal danga koy nangu tudd naa fi fii ñeent ku ci paase ñeent géwma nga dem fu sore Senghor fi jiitu woon ab du Diouf moo ca topp Ablaye Wade topp ci yi Sall moo clôturé même régime bi du jaadu pour mu continuer ti li ma wax xam naa ko dafa tolloog Sénégalais yi nag ñu ngi noonu waaw mais man li ma leen di wax xam naa ko waaw ngeen baal ma nag baat yi léeg leen dama cay toll laaj ko capitaine mi Cheikh ma ngi toog ma ni capitaine sa turandoo moo ñaf Senghor ma ni ko man mii di sa mbokku daay daara maa ñaf Abdou Diouf ma ni ko Ablaye Wade nag parenthèse rek la moo tax jarul woon yenn yi ma ne ko waaye kii fi mujj nag ma ne ko sa cër la jëlal say disposition moo tax mu wax leen lim leen wax démb ni waxal li nga bëgg rekk wax na dëgg waaw kon nag dina wax ak yéen waaw man dinaa wax ak ñi ma war a waxal mën naa prononcé ci candidature bi mais jarul yàkkamti dafa am liggéey bu ñu bëgg a yeggale tuuti rekk ndax ku ñu xam foo jëm doo fa yegg lu dëkk mu mel ni kon nag sunu gan ñi da ci am ñoo xam ne léegi ñu dellu ci seen liggéey fekk ñu wax yi ñu war a wax yépp ba noppi waaw ko defee ñoom ñu yeggale seen liggéey ñu nit ñu yeggale sunu liggéey rek waaw mais changement yi par A ou par B mu ngi ci kanam di ñëw mën na metti nag comme mën na bañ a metti ndax wakafa allahu almuminina alqital waaw gàmmu gi am na ñu jëloon décision bu ñu nekkee ci biir gàmmu gi ñu fekk ñu fekk seeni fetal ak seeni lacrymogène décidé woon nañ ko waaye fekk na may jël nañu suñuy disposition mag capitaine sunu soldaa yépp a ngi ci biir tànk waaw waaw sunu soldat yëpp ñu nit ñu ngi ci biir tànt te ku ci nekk nag lañ la war a jox jox nañ la bu ko defee kon nag ñoom duñ ko ñeme ñun ñu di ko ragal waaw te comme dañ doon soow 16 février naan juróomi policier bii yoon bu ñoo xam ñaata waaw waaw ko defee kon nag ñoom ñoo war a yërëm ñi ñu yor dinga kayit gi rek waaw kay ak bindu yërëm ñi ñu yor parce que ñoom it sonn nañu gendarme yi sonn nañu policiers yi sonn nañu militaires yi sonn nañu waaye itam jigéen bu ci bañ tënji sa jëkkër ba yóbbu nga téye ko waaw jaa ngi fi de te góor gii laata muy dem am na lu mu fi bàyyi waaw moo tax keroog bi ma Oustaz Cheikh di nii waaw ndax mënoo ma woon dimbale nangam nangam ma jox ko yoo xam ni ba mu ko xoolee dafa xam ni lii day sonal boppam mu del boolewaat yëpp delloo ma ko waaw waaw lu tax na kon nag ah daara ji am na ñu fi nekk di waaw te am nañu it lu ñu mëne ndax yàlla ak seen woy jur yi ak seen maam yu baax yi maa ngi dégg imam Samba Diop di ko wax ci invitation biñ ko invité ci ci TFM waaw di ko wax mbokk mi ma gis nga dinaa gis ni à chaque fois mu bëgg a jëm jëm si ci man rekk dañ koy dagg waaw dañ koy dagg daal bi leen yonent bi mooy ñun yonent bi dul woon ak ñun dafay am lii du ko am moom xam na ko moo tax tout le temps bu ñuy gàmmu mu ñëw waaw mais yaa rasulallah waxuma gelaw li ولد الهدى وولدت معه جنبا لجنب كذلك ليتم الله نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا moo tax yéen ñi yore daara ji dee leen boole ñetti yooyu surtout di ko jàngal njaboot yi dem di jàngi wala ñu war a def examen dee leen ko jàngal jàngal leen ihdina siraat al mustaqim dinaa leen wax adat bi nag ndax loo fi indi ñeneen jël ko waaw waaw ihdina siraat al mustaqim boo ca jóge nga teg ca wa yahdiyaka siraatan mustaqiman bu ñetteel ba mooy alhaadi ila siratika almustaqim waaw waaw ñett yooyu loo ci bëgg a def rek ci wàllu googu boo ko defee ci adat bi te yàlla nangu ko yàlla mën na ci def sutura cheikh a ngi nii seede la ci man léya ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man waaw waaw ci mbaaxu yàlla صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري